الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي إنك سنت سنبرون سبحانه وتعالى دي سيدنا ممدن ومويون كي جام دي سيدنا محمد أبجام من رميني ونشنون yal na yàlla subhanahu wa taala julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk neen ragal yàlla te xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala day yónni woon na ay xeet jiituñu ñuy xeet yu bari lool suñu borom yàlla netti luñu yonent yooyee fañ jaar ak seeni xeet ngir ni loolee ñun ñu mën caa xalaat ba jéem tànn yoonu ña texe ñu jaar ci seen yoon jéem moytu yoonu ña nga xam ni dañoo alku ñu moytu seen yoon loolu suñu borom teqalee ko mu nekk njub ak yërmaande ñeel ñi gëm mu bokk ci li yàlla gën a ci téeréem bi mooy qissa Muusa alayhi Muusa moom nga xam ne mbiram ñëw na lu ëpp téeméeri yoon ci téere yàlla bi loolee bokk suñu boroom da cee bëgg a bàyyiloo xel jullit ñi bu baax mi ngi noonu amoon na ci benn jamono ci fii nga xam ne mooy Égypte nekkoon na centre adduna bi ci puissance yàlla yónni yàlla génne fa benn ci jaamam bu ñuy tuddee Firawna mu kattanal ko ci façon kattan bu nekk mu yor nguur goo xam ni yàlla ko seede lakumul mulkul yi zahirina fil ard firawna bi muy dund mboolem buur yi nekkoon ci kaw suuf moo leen tiimoon loolu nag yóbbu na ko ba mujj bew jàpp ni nit ñi waratuñoo jaamu yàlla moom lañu ñu war a jaamu ay luwaam la ñu war a topp kenn warul topp loo yàlla fekk fa am na fa benn giir boo xam ni seeni maam ay yonent lañu woon muy bani Israil nga xam ni ña nga fa ñëwoon Égypte ca jamono ci yàlla Yuusufa loolee buur yañ tombee loolu màggal leen waaye biñ dajeeg buur bu kàccoor boobu di Firawn mu wëlbati mbir yi ñu jàpp leen def leen ay jaam di leen toroxal guddi di leen toroxal bëccëg ci loolu am ay boxaabaam yu ne ko firaw ni day sa nguur gi am na ko nar judd ci bani israil moo ko nar a daaneel loolu bi mu amee mu ne kon lañu rey seen doom yu góor bépp bu ci judd commencé kuy judd di góor ñu rey ba mujj conseiller yi ne ko ah bu yàggee lii kon dootuñu am kenn ku ñu liggéeyal mu ne kon nañu rey ren bu déwee ne ñu bàyyi année bañ waroon a bàyyi ca la Haaruna juddu année bañ waroon a rey ca la suñu borom yàlla juddul yonent yàlla Muusa ngir wane kattanam loolee ba Muusa juddoo ca fekk ko judd dañ laa war a rey suñu borom digal yaayam ju baax jooje ne ko dugal ko ci benn kees nga sànni ko ci dex gi nga xam ne mooy le Niil loolee ba mu amee ñii di njabootu na for ko biñ ko foree indi ko ci palais bi soxna Firawna bi mu ko gisee àndatul ak sagoom ci xale bi mu dem ni Firawna e way kii buñ ko rey nañ ko bàyyi ñu jàpp ko def ko suñu doom yàlla miy dogal dogal lool ka nga xam ne moom moo taxoon Firawna di rey xale yi judd yépp yàlla indi ko ci paleem Firawna moo ko yar di ko dundal mu yaru yaru buur di sol seen col di war seen colay loole ci la Muusa nekk ba muy dem di jege ay fanweeri at yàlla natt ko mu gis ñaar ñu doon xeex kenn ci waa aristocrate yi mooy buur yi di bi kenn ci waa bani Israil Muusa ñëw dóor ko mu faat loolu moo ko fëddili mu daw dëkk ba dem fi nga xam ne mooy Madiana ci côté Jordanie nekk fa fukki at gannaaw ba ko fa yàlla wërsëgalee soxna bi muy dellu nag ca la ko yàlla nii def ko ab yonent ne ko Moussa demal ci Firawun soo demee nga wax ko wax ju nooy waaru ko ngir mu dellu gannaaw loolu it muy wane mbaaxu borom bi ak yërmandeem Firawna ak lim def lépp bu nanguloon Moussa yàlla baal ko tàbbal ko ak aljanna waaye Moussa ba mu ñëwee fekk ñaan na yàlla dollil ko frère am ba nekk yonent ko moom bi ñëwee ci firawna firawna daal di gën a bew di ne Muusa boo fi jëlee beneen yàlla bu dul man dinaa la rey rey bu bon te boole la ca ñuy suul ca teen ya minal masjunin pew bu dee dangaa am lu weddi sama ngóor gi lan la Muusa alayhi salaam génne kawtéef ya ko yàlla joxoon te may yetam ba nga xam ne bu ko sànnee mu nekk jaan firawna na ko ha lii moo tax ngay may défier danaa la indil ñu la dàq njabar fuuf dem dajale mboole mi njabar yi nekkoon Égypte njabarkat yi bi mu ñëwee ba jàkkaarloog Firaw ba jàkkaarloog Muusa génne lépp lu ñu mënoon ci njabar Muusa sànni aw yatam yat ba daal di war na lépp luñ génne woon ba yàlla mi dugal ci ngëm ku ko neex ñii di njabar yi ñoom ñépp ànd su juutandoo na ñun day gëm nañ borom bi ndaa fan yi te mooy yàllay Muusa ak Haarun loolu mbokk bi mu amee Firawna mer ne ah yéen a may jéem a toroxal waaye da ngeen xam dan bu ma leen reyee ngeen kontaan bal dina dagg seen loxo ndeyjoor seen tànk càmmoon daaj leen ci datti tàndarma yi ngeen nekk fa di siit ba baa ngeen di dee waaye njabarkat yi luñ ko tontu ey firawun lan nu'siraka ala ma jaana min al bayinat amul lenn loo xam ne man nga ñu ko proposé ci alal wala nga tëkkoo ñu ko ci mbugal ba tax ñu gën la la ci la nga xam ne moo jóge ci suñu borom dogalal lu la neex dogalal faqdi ma anta qaad innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya fir'aun lu la neex defal ci ñun sa def yépp ci aduna rek la yem ñun gëm nañu suñu borom ngiree mo baal ñu ci suñu borom lañuy wallahu khayrun wa abqa la nekk ci suñu borom day moo gën ca moy sax loolu nekk ci yow yóbbal yow ndawal julit heure bay fàttali ko xissa Muusa fàttalikul njabar yooyee nga xam ne bañ ñëwee Firawna digoon leen danaa leen jox alal boole leen ci samay conseil personnel min al muqarrabin waaye ba gisee dëgg dañoo dem topp dëgg dëgg googee tax ñu boole leen rey mboole seen loolu mbokk ndawal julit yóbbalu ko sa diine boo ko jënde alal sa diine boo ko jënde ku lay menacé ku lay tëj kaso ku lay rey nga la waay booy dund dundal ak sa diine booy dee deel ak sa diine booy am amal ak sa diine booy ñàkk-ñàkkal ak sa diine ca xam ne diine jooju boo ko pertee perte nga lépp ca boo ko amee ñàkkatoo dara loolu la njabar yi def firaw na rey leen gaa yi ñëw na nga ko waaw looy def nag léegi Moussa xeetam nag mu ne nañ continuer liñ doon def nuqattilu abnaahum wa nastaxyi nisaahum wa inna fawqahum qaahiroon nañ leen continuer di rey seen doom yi góor yi di rey seen doom yi di jël seen doom yi jigéen ñu nekk jaam loolee dana tax ba ñun ñuy continuer di leen noot te loolu itamit mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax nañu xam ne mbokk yoonu caaxaan mbooloom caaxaan lay seen jubluwaay mooy képp koy woote ngëm nekk ci seen kilifteef ñu koy digal muy def loolee amoon nag mooy am ba ilaa yawmiddin mbokk firawna tey mooy kéeféer gi nekk ci kaw suuf nga xam ne seen noon bi gën a rëy tey mooy lislaam nu ñuy def ba fay lislaam nu ñuy def ba fay lislaam ci xolu doomu jullit yi rey leen rey bu gën a bon ba firawna doon rey ndax firawna doomi bani israel yim mu doon rey insha allah ñun ñëpp àddina lañ jëm amma rey gi occident di rey tey doomi julit yi ñu ngi koy jaarale à travers internet fexe ne tey jii ba village bi gën a reculé ci afrique ci asie ci fu mu mën a nekk daañ fexe ba internet dugg fa doomu julit yi xamatuñu seen aaday maam xamatuñu seen diine ñi ngi branché wu kër goo gis lu bari na nga nekk seen wif fii 24 sur 24 ñi nga branché wu ci loo xam ne manipulation la boo organisé ñu organisé woon les premières guerres ñu organisé la troisième guerre mondiale boo xam ne kii une guerre culturelle nan la ñuy def ba dominer adduna bi ci ay xalaat loolu tey mbokk mooy jubluwaayu puissance bi nga xam ne ñoo représenté tey Firawna ci kaw suuf mboolem yéen parents ngeen bàyyi ci xel dara gënul nekk menace say portable dara gënul nekk menace say internet loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax bàyyi leen xel ki nga xam ne nii mooy njabori firawna ya bàyyi leen xel njab soxna firawna ci boppam ba nga xamee ne Moussa woote na daa gëm Moussa firawna menacé ko mu daal di sax ci ngëmam firawna jàpp ko daat ko mu sax ci ngëmam yàlla jox ñu ko misaal daraba allahu masalan lilazina amanu rada firawn إذ قالت رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين سخنا سوسي بك فرعون داجي دفن يان يعني يالا يالا سخن ما تنجم بما دي يالا نجم يالا ميم ما دكر يوشي أجنيا نمسل نعم ما تفرعون أكي بخيم لولي دي بن مير بوخمني بيب جيجين باي بوخيم قال واي ديني جي غورك جيجين وقصيخ يو جيجين بلو غور يبالي تعي بدام bu la góor yóbbaale ci ay bokkaaleem sa jëkkër bu nangu wala jaamu yàlla bàyyi nga fa xamal ne lay sa priorité du ab sëy waaye lay priorité mooy nga am ngërëmal yàlla ba ëllëg <clears throat> ba ëllëg nga mën a dem janna looloo tax soxna su baax su si di asiya suñu borom joxe ko misaal ñeen dirit ñëpp bokk na ci keneen koo xam ne sunnaa ñi moo ñu ko nettali mooy almashita ki nga xam ne moo doon litt doomi firawna kere bu kay litt ba ràbb ba daanu mu ne subhanallah léegi doomu firawna la ko waaw ban allah ngay wax sama bàyyi wala mu ne ko déedéet sama bàyyi sama borom di sa boromu bàyyi mu ne ko da ngay jaamu keneen ku dul yàlla ne bërit dem wax ko papaam na mer woolu ko ne ko ah da ngay jaamu keneen ku dul yàlla danga nga xam bëgg koo influencer jël doomam yi di rendi par kenn ndax da ngay génn ci diine mu ne ko déedéet mu rendi kenn bal dañ ne sax benn kaddir la jël baxal ko ak diw jël di sànni soxna si naan ko laa ilaha illa allah mu koy sànni soxna si nan ko laa ilaha illa allah ba dara gisul lu dul moom mu jël ko ne dama lay sànni mu ne ko seedoo nga sànni ma leen rek laa lay ñaan nga boole ma sama yax ak sama yax yi doom ci benn xabru mbokk soxna soosi di machita bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee isra wal miraj ànd naag jibril bu mujj benn xet daal bu neex xeeñ ko mu ne ko jibril xet gi mooy lan mu ne ko lii de mi ngi jógee ci manchita bi nga xamee ni nii moom la firawna rayoon rey bu bon boobee mbokk tey bu ñuy fàttali ko Ashura ko leen jabar yooyu fàttali ko leen soxna firawna fàttali ko leen manchita waaye ngeen fàttali ko it fan yàlla di mujj ak ña xam ne dañoo beew ci kaw suñu borom ba demee ba neex ko sant na yonent yàlla Muusa na ko àndal bani Israil ngeen génn dem ngeen traversé les rouges danaa leen musal ci firawna bañ demee ba yegsi ci géej firawna dab leen ak armeem boo xam ne ëpp nañ fukk yoonu armée Moussa waa bani Israël yépp tiit inna la mudrakuun tey rek lañuy ñuy alku wax kaddu goo xam ne yow ndawal julit gànnaa yoo ko kalla inna ma'iya rabbi sa yahdin déedéet maa ngi ànd ak sama borom sama borom dana mu ay yow jullit xamal ni àdduna foofu mën a toll lu mbir yi ñàng-ñàng lu mbir mi jafe-jafe bul tiit bul saalit xamal ne yow say effort daa am fu mu yem fa nga yem nag fa la kàttanu yàlla bu amul fu mu yem tàmbalee muy suñu borom jalla wa ala mi nga xam ne moo diggaate ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib képp ku gëm yàlla dana ko may génn waaye daa di ko wërsëgal fu mu ko foogewul woon loolee ca la yone suñu borom wax Moussa dóoral géej gi mu dóor ko yàlla xar ko mu nekk fukki yoon ak ñaar doon ay montagne ka tawdil azim ndox mi yëg ci kaw ci suuf nekk tariqan yabasa wow koŋ yàlla na Moussa dugal ak sa xeet Moussa dugal xeetam boole seen yàlla dugal firawna ak xeetam boole seen gannaaw ba yàlla musal fi Moussa daal di labal firawna ak ñi mu àndaloon ñëpp na ba mu demee bay lab mi ngi naan gëm naa ne yàlla dong yooyu ñu koy jaamu doonte ne fekk ne c'est trop tard loolu mu lay wan ne yow doomu julit foo mën a nekk ci say jafe-jafe ci ñàkk gi ci sëy bi ci jaaxale gi tumuranke bitim réew ci lu mu mën a doon doy loolu sa boroom muñal mun nga rafet heure boo xam ne boole nga la nga xam ne mooy as-sabr wal yaqin mooy gëm sa boroom ak mun nga rafet lu mu yàgg-yàgg yàlla dana la xettali ca nga mboolem peuple bu bew ci kaw suuf mboolem nit ku bew ci kaw suuf balaa faatu yàlla subhanahu wa taala dana ko dox añam fii ci àdduna mbokk loole ba mu amee mi ngi tombe woon ak bisu ashura bi nga xamee ni ci xabaar yiñ jot ne arabi saoudite ñoom gisoon nañu weer wi te la nga xam ne mooy bisu àllarba ba kon dañoo jàpp ni samedi suba bi mooy ashura samedi suba bi mooy ashura doonte ni xam nañ ñu suñu waa ñoom dimanche lañ ko jàpp waaye ala kulli xaal koo xam ne yaa ngi koy woor woor ko ci wóoruk gëm ni man day maa ngi woor loo xam ni yonent bi alayhi salaam moo fekkoon yahud ya ca madina ñuy woor mu ne waa lii di woor lu mu doon mu ne mooy bis bi yàlla musal woon Muusa ci Firawna Muusa woor ko ngir sant yàlla ñu nit ñu koy woor ngir sunna yonent yàlla Muusa la yonent bi alayhi salaam ne leen ñun ñoo leen gën a yee ci Muusa daa di ne jullit ñu woor leen ko bañ koy woor ba ca atum fukkeel ma ñu wo bañ ko wooree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn ci ndaw ñi lenn lenn ci jullit ñi da ah, quoi yow day yaa ngi digle ñu juyoo ak la nga xam ne mooy ahlul kitaab amma ashura ñu ñëpp ñoo koy woor mu ne waaw bu déwé ni ñun nañu woor juróom-ñeentel ba encore looloo tax juróom-ñeenteel boobee di mel ne suñu bisub tey bii ci dañ ko jàpp loolee mu nekk sunna boo xam ne dañu suñ na ñu woor ndax yonent bi alayhi salaam nee na su ma dundee ba déwén danaa ko woor waaye yàlla def na dundul mbokk woor bi sa ashura yonent bi nee na la baal sa bakkaar at bi nga xamee ni nii moom nga génn yëpp mbokk woor bi sa ashura nañu xam ne loolu la sunna am na ñaari extrémité yu siq loole soo demoon tey jàpp si télévision Iran Irak da ngay gis bu su dañuy nekk di cawantey jaasi di gaañ seen bopp di tuur seen deret yi njaboot ñu ne kat bis bii ci lañu rayul Huseynu ñoom bisu tiis lañ koy def boo delloo ci lu bari ci adduna bi ñoom dañoo jàpp ne bisu noos la war a doon loolee am na ñoo xam ne bañ koy def démb dañ ca doon ah jublu màggal ngir famille yonent boobee jeex na donte ne ne loolu néew na ci kaw àdduna tey ñu tudd leen ak nawaasib li ëpp ñi nga xam ne ñoo koy def tey ñoo ko teg ci ay xadiis yoo xam ne wérul tasaaroo ci ay suñu téere suñu maam yi kenn leen a ndax téere yéen jot ñoo indi xadiis yooyee donte ne xadis yooyu créé nañ ko des siècles après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na من وسع على إياله يوم عشرة وسع الله عليه سائر السماء كو خاني بس عشرة ديقنا غفخي بس نجبوت بيقل نجلين عني بيبو يالا سبحانه وتعالى دلائيات البيقل لولا تخني توقو تشري دي دف لكن خمو نكري يرين حديث نمبولم آه، كراغ بو يالا مسا واتي تكو صوف من كو واتي بش عشرة تشالا سبين نوح عود صالح إلى آخرين لولا نيوح كوتشي loolee mbokk buñ ko doon wax mën naa fee taxaw ba takkusaan waaye yow mi borom xel lenn laa lay yëgal yonente bi alei salaam lenn la digle ci Ashura mooy ah nga woor ko soo ca mënee boole bis bu ca jiitu xayrun soo ko mënul nga woor Ashura ba kese yàlla bal la bàkkaari at bi nga génni yépp leneen lu dul loolu wa yaag ray bopp jirim yaag kaza waag ziyaara borom xam-xam yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ni dañ ko caa dolli doonte ne ni ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla jéggal ñu yal na yàlla yërëm ñu yàlla mi xeccali woon Moussa ak bani Israil yal na yàlla xeccali ñu xeccali suñu njaboot ci lépp loo xam ne menace la bu feeñ ak menace la bu nëbbu yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet te yàlla defal ñu àjjana mu nekk suñu wàccuwaay ñu daje fàgg yeneen ci tedd yooyu ak jaam yu baax yooyu yàlla jox ñu ko nekk seen misaal allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين